dal leen ak jàmm boo xefee yenn ci ay sénégalais Amérique dootul neexati ci ñoom ndax ñoom ñooñee dañoo tiit ginnaaw ba Donald Trump jëlee ndam li foofu l'observateur jox kàddu gi suñu naataangoo ya fa nekk républicain bi dafa ne woon dina amal benn fon ngir rapatrier bépp marchand ambulant sénégalais bu nekk foofu président association bi ëmb sénégalais yi ne fukki at ci ginnaaw Trump moo doon jiite association wu marchand yi dafa ne woon sénégalais yi dañuy ñaawal seen mbedd yi kon dañ leen fay dàq Njaga Njaay jox leen kàddu ñu wax seeni tiitaange Hillary nërmeelu na Trump bett àdduna wërngal këpp tribune Tribune moo xëyee loolu ci xët wu njëkk wi tey jile wax ci ñeent fukk ak juróomeelu président bu États-Unis en tout cas daal àdduna wërngal këpp mi ngi lox ci gis-gisu direct info li kenn xaarul woon nag mooy nit ñu ñuul ñi jigéen ñi ak yenn ci ay latino yi ñoo voteel Donald Trump mu di ab mbetteel Donald Trump soppi discours am bi mu yëkkati ginnaaw ndamam ba tax enquête samp laaj à quel Trump se fie ban Donald Trump lañ war a wóolu li mu yëkkati ci ay kàddu mooy waxtu wi jot na ngir Amérique booloo nekk benn mu wute loolu ak discours yi mu doon yëkkati ci campagne ay discours yu raciste ñi gisee professeur Ousmane Sène le soleil jox ko kàddu tey jëlee ne yaakaarul ni coppite dina am ci coopération États-Unis rawatina ak suñu réew ku wax ba marte kenn dégluwu la nga war a bind loolu la ku jegi def l'observateur xamal nañu ni watu Sénégal bind na bataaxal bu am solo jagleel ko Macky Sall leetar ba déposé nañ ko njeextalu semaine ba la weesu ba léegi mu ñeel jafe-jafe yi am ci wàllum élection yi Omar Sarr coordonnateur parti démocratique sénégalais gis ni régime bi dafa leen di jaay muus ngir waroo ak yoon ci législative yi nag ñu ne ab tayeef lañ ci gis ndax nguur gi moom moo ko tey bëgg a def quotidien yit di wax ci ndaje bi front manko watu Sénégal doon amal ñoom front bi di soupçonné ni nguur gi li bëgg daal mooy dàq élection législative yi ñu nar a amal ci atum Omar Sarr ak ñamu àndal lu ci mel ni ñoom Malick Gakou ne mandat député yi mi ngi nar a jeex fanweeri fan ci weeru juin atum te boobu ba léegi mënaguñoo sax jàpp date ne élection yi ci lay am Macky ak ñamu àndal leer na leen naññ ni sénégalais bu ca nekk bëgg ngaa am carte biométrique Abdoulaye Daouda Diallo na leen abal bëggatuñ koo gis moom responsable APR la ba noppi ne day organiser ay loolu amul mënta nekk waaye ku jégi waruñu woon a ci ponk yooyee képp réew mi quotidien gis ni waroon nañoo wax ci mbirum Barthélemy Diaz ndax maire socialiste bi jamono jii ku jégi la gën a jege sax que pouvoir ba tax na ñoom waa Manko Sénégal waroon nañoo wane ab njàppale ci mbiru Barthélemy Diaz bi waaye lu tax defuñu ko li ko waral a commanditaires yi nag wax ay nit yu faree woon ci régime ba woon parti démocratique sénégalais PDS bokk ci front wattu Sénégal jamono ji front bi bugg ñoo merloo libéraux yi di wane seen jàppale ci Barthélemy Dias ba tax na ci mbir mi daal neutre lañ ca def waxuñu fa ñu féete Aïssata Tall Sall ne amul wër-wërloo Aïssata Tall Sall débat mooy titre journal Le Quotidien socialiste bi wax ci àtte camarade de partem mu gis ni yenn ci ay membre parti démocratique sénégalais ñu ngi jàppale Barthélemy Dias ñenn ci ay socialiste la ñu bëgg rek mooy ñu àtte ko yóbbu ko ca ba taxawal coalition lañ ca nam mooy daaneel ab régime du leneen muy wax ci biir quotidien digganteem ak Ousmane Tanor ak Khalifa Sall ñu jàll ci projet de loi bi ñeel ay coppite ci cour suprême journal bi publié début ba fin première partie document bi laas ne ko jaratul coow ndax maître Sidiki Kaba désamorcé na bomb ba UMS union des magistrats du Sénégal dafa naroon amal assemblée générale waaye dàq na ko ba jëmmi jamono lañ ca moon mooy a yokk woon yokk mandat Gibril Camara tey jilee ñu xëy ñu ne dañoo bëgg yokk bu Mamadou Badio Camara duñ ko nangu benn yoon laas wax ci mbir mu doy waar xewee ci diwaanu Thiès benn soxna bu wann lor la ñu ñëw këf yóbbu xamuñu fañ ko yóbbu ñu koy këf doon laaj 200000 francs ci wàllu rançon le popéreel na xaaral demee soxna si Kébé Samb la tudd mi ngi ëmb lu toll ci juróom weer am ñaar fukki at ak juróom kepp bàyyi ñaari doom ca kër ga bu bokk ak bii mu ëmb ñu ne daal dafa xëy di dem hôpital di seeti gynécologue am arrêté benn taxi dugg ca taximan ba ca boppam moo ko jël yóbbu ko ci benn soxna ak xale yu góor yu nekk ci benn oto 4x4 jëkkër ji jaaxle lool ginnaaw ba ko soxnaam woowee di laajte 200000 yi mu dem envoyé leen ko laataa koppar gi di yegg police mi yëg yëf yi ñëw suspendre transaction bi ubbi ab enquête soxna si moom li mu wax jëkkëram mooy xamul sax fan lañ ko yóbbu te bañ koy jox ñooñu dañ ko yeew ba mu dëgër këcc ci tàggat yaram gaynde yi ñu ngay accéléré ca Polokwane démb moo doon ñaareelu séance entraînement Kara ak Saliou Ciss noppalaku nañu mardi ñu reprendre entraînement bi ak groupe bi ñu dem ci sunu lomb ak jigo préparateur physique bu ëmm seen Suisse te boo moyul mu yokk dooleem préparateur bee ko wax jigo wax leneen ne ñoom Bombardier jàng nañ ko bu baax de xool nañu na muy bëree Bombardier du n'importe qui sax waaye nag nee na bu bésu combat bi jotee dina xam ne lépp dëgg la ñu